ci coowu Ousmane Sonko ak Adji Sarr la war a doon pour yi gàcce la war a doon képp koo xam ni nga bëgg Sénégal gàcce la war a doon pour képp koo xam ne sa yéene mooy Sénégal nekk réew mi verdict bi déjà dama am soulagement Pourquoi Parce que depuis l'éclatement de ce complot, de cette euh, euh, machine judiciaire enclenchée pour éliminer un candidat, regarde Patlico, ci mars 2021 mhm. gëm sa bopp ak man mi nekk ci bopp bi dama ne am na confiance ci Ousmane Sonko ndax lii ñu koy jiiñ dina ma piège la ndëgg sërëx la bu ñu ko tegal ma ne ko am naa confiance ci yow ba ma ko seetee këram bi mu nee du wuy ji justice dama ne ko demal wuy ji parce que justice bu bonee it suñu justice la mais jàpp naa ne dama am confiance ci yow confiance boobu ma am maa ngi sant suñu borom bi nga xamee ne conscience boobu moom Ousmane Sonko dëggal na ko parce que justice boobu tey bi ñu jéemee seeni pexe xool xool xool lu gën ci yëkkati teg lu nekk ñu def combinaison xam nañu ne lañ ko doon toppee loolu jarul dóor sa doom parce que amul argument yu solide maanaam am preuve yu war a tax ñu ne moom Ousmane Sonko def confiance boobu nga xam ni am nañu ko ci moom ñu am rek euh, pincement au cœur parce que justice bu ñu ko jëlee def ko mbub def ko yet jël ko di ko doole ay adversaire parce que boo xoolee réquisitoire procureur bi su procès bi à la fin la toog ni yow juge bu fekkee ne amuloo conviction maanaam bu fekkee ne ñu muy at amuloo dëgg firnde ci ne viol bi ñuy toppee Ousmane Sonko dëgg la waaw man procureur maa ngi lay laaj nga toppe ko corruption de jeunesse amal fi corruption de jeunesse mooy maanaam naan xel yaa ko mat nga wax moom wala nga teg ko ci yoon wala nga pexe ba naan xel mi maanaam muucu xel mi ba loo ko wax mu def ko ku ne léng day ni ndeyam hmm. xam lu ndeyam xam mën nga koo def loo lu ko neexul mën nga ko mën bàyyi caaxaan Sénégal bu ñu ko bëggee defar dañuy bàyyi caaxaan hmm. lii lépp ku ne xam na ne processus la ku ne xam na ne yéene la bu Macky Sall am depuis le départ mooy nu mu mën a def ba éliminer Ousmane Sonko parce que c'est un candidat sérieux c'est un potentiel challenger de Macky Sall mais Macky Sall na xam ne jeunesse sénégalaise taxaw nañu Ousmane Sonko du jëmm Ousmane Sonko du discours Ousmane Sonko dafa nekk ci dynamique boo xam ne jeunesse bi ñun ñi juddu dans les années soixante dix ak quatre vingt on a compris que suñu avenir dañu ko hypothéqué on a compris que suñu avenir dafa am ñu koy foowe on a compris que alalu réew mi dafa am ñu ko jël def ko seen alalu bàyyi def ko ndono di foowe réew mi jël jeunesse sénégalaise def leen benn chair jël sénégalaise jël jeunesse sénégalaise def leen ñu tekkiwul dara ñu warul am dara ci àdduna yeew jeunesse boobu xam nañ ne Macky Sall yéene mooy éliminer képp koo xam ne àndul ak ñoom ñoom ñi saay-saaye la république yéene Macky mooy fexe ba képp koo xam ne candidat nga wala nga dugg fekk ci leen ci langue politique bi nga xam ne ñoom dañoo jàppoon ne seen domaine réservé la keneen ku bokkul ci ñoom ci politicien professionnel yooyu yow waroo ci dugg ñooñu ñoo ñëw taxaw tey ne danañu éliminer képp koo xam ne ànduloo ak ñoom xalaat ñoom ñi bëgg saay-saaye Sénégal ñu ne ñun ñi bëgg Sénégal non non non yéen du ngeen fi prospérer moo tax démb ñu amal ndaje foofu ca palais de la république mooy la ma waxoon rek ñi mos ci régime bi ñi coppati ci régime bi soixante quinze ans soixante cinq ans mag yooyu ñoo toog nee nañu ëllëgu Sénégal la ñuy waxtaane ñun suñu ëllëg ñun ñi am quarante ans ñi am vingt et un ans ñi am dix huit ans seen ëllëg ñoom ñoo koy waxtaan dangay ngay toog ba si àgg nga xam ni réew mi dañu koy caaxaan réew mi dañ koy foye il est temps on a une jeunesse consciente ñoo xam ne ni ma ko bind ci poste bi ma def léegi une jeunesse bu comprendre les enjeux de l'heure te xam nañu ne moom suñu bopp dog jéngi yi dong moo ñu mun a génne ci situation bi ñu nekk ngir Sénégal mun a naat dégg na leen démb c'est or Sénégal am na gaz wuy Sénégal am na alal mais yàlla bëgg Sénégal moo tax mu bàyyi leen ba ngeen di jeexal yéen dëmm politiciens yi yàlla doo ko génnee richesse yooyu teg ko ci kaw taabal ngeen bëgg ko ne ko dëndiix lekk ko lekk seen wàll muucu askan wi bëgg a wëlbatiku ñëw muucu alalu askan wi pour que nit ñi continuer dans la pauvreté non ça passera pas. justement euh, euh président yéen du côté de l'opposition lan moo war a nekk la réplique allô président. allô. oui allô. alors euh, yéen du côté de l'opposition ban réplique la ñu mën a xaar ci yéen yéen ñi nga xam ne yéen a taxaw jàpp ne peut-être nii ni ñu doxalee nii du noonu. Mambay euh, dossier maa tey procès maa tey verdict maa tey réponse maa tey rek def lu la neex am lu la neex amul ci adduna dangay ngay def lu la neex mais liy ñëw mënuloo ko maîtriser et aujourd'hui li nga xam ne moom moo am li ñu gis réaction bi ñu gis du réaction boo xam ne mën nañu ko cautionner du ñu ko cautionner mais mën nañu ko expliquer mhm. kon ku nekk ñu jël responsabilité justement balaa ngay dem ah démb yaa ngi jot a euh, distribuer plus de cinq cent mille euh, euh, cartes carton rouge ndax sa loolu dafay continuer ba léegi ndax deux millions nga annoncé woon mais euh, euh, ci dernière euh, rencontre bi ma échange bi ma am ak tànk l'intendance et la trésorerie ils sont à plus de deux millions de cas mhm. parce qu'au niveau des autres départements les quarante six départements jot nañu ce matin cinq cent mille cartes yoo xam ne distribué nga ko daanaka ci benn demi journée Euh, c'est c'est c'est quand même c'est quand même un gros résultat boo xam ne yow am nga chiffre boo xam ne peut-être Macky Sall amu ko woon ci euh, salle des banque bu palais de la République. mais xam nga euh, Simon. gëm sa bopp Macky moo la gën a xam ne gëm sa bopp ci xolu Sénégalais yi la nekk. c'est une réalité aujourd'hui moo tax benn élection bi mu bàyyi ñu dem. Ndakaaru mouvement lañu dañoo jël troisième. Mhm. ñoo jiitu PDS bi def vingt six ans au pouvoir def def vingt six ans dans l'opposition douze ans au pouvoir mhm. kon Macky Sall moo la gën a xam ne gëm sa bopp dafa nekk ci xolu sénégalais mhm. gëm sa bopp boobu tey dafa taxaw pour Sénégal nekk réew mu jàmm dafa taxaw pour Sénégal nekk réew moo xam ne nit dootul liggéey di torop gëm sa bopp boobu tey dafa taxaw ngir Sénégal bañ a nekk réew moo xam ne da ngay ñàkk di walaataana mhm. mais keneen toog ci roq bi du toog muy dox Sénégal boobu tey moom Macky Sall xam na ne gëm sa bopp mu ngi ci biir àll mu ngi wax ak baykat yi mu ngi wax ak sàmmkat yi mu ngi wax ak nappkat yi mhm. te la mu leen di wax mooy du soqali fan wa nekk ngir mën am teranga yore réew Macky Sall moo la gën a xam doole gëm sa bopp mais tey jii ni mu ni mu nekkee ci yoonu éliminé Ousmane Sonko ni mu éliminé woon Karim Wade def ko Khalifa Sall hmm. tey jii noonu la nekk di ko defee ak Ousmane Sonko bu paree ci Ousmane Sonko dana jëm si ci Bougane dana hmm. dem ci keneen ak keneen koo xam ne yaakaar na ne askan wi jox nañu ko bopp moo tax ñun ñu taxaw de def mhm. pour wax ne deux mille vingt quatre kenn dong moo warul bokk ñu président Macky Sall te nag yéene yéene bi ñu am mooy xeex ba képp ku war a bokk ci élection nga bokk ci élection yi mhm. man suma combat mooy fexe ba Ousmane Sonko tënn bañu ko galgal mu taxaw ak faculté yëpp bokk ci ay élection deux mille vingt quatre incha allah ñun gëm sa bopp ñu boole leen ñoom ñëpp jaar ci seen kaw daal di jël ndam li pour moom ne sénégalais yi taxaw nañu pour seen réew. Mhm. sénégalais yi dañoo soxla ay yi dañoo soxla ay nit ñu am parcours ci wàllu liggéey wax rek dafa doyatul li ñu bëgg mooy su fexe ba suñu njaboot ëllëg ci xam-xamu liggéey. ci résultat bu wóor bu def ci mi mu jóg wan yoon yi wan gone yi yoonu tukki mhm. tekki dong mooy tax dem dem kayi dem kàccot dem ngànda waxtaan ak baykat yi gis la fa nekk gis jafe-jafe ya fa nekk am gàcce njuuneen dem nañu fa departement bu ci département bu Kaffrine commune bu Kaccor case de santé bi case de santé bi ndaw si nga xam ne moo fa nekk nee na pajaas lañuy ñuy teg ci biir foofu la jigéen ñi wasin biñ mhm. ma ko waxee sama xol dafa métt mhm. et pourtant commune boobu la ay département boobu la ay ministre bi tëb bi dal ci réew mi mhm. naan réew maa ngi dox ban réew moo dox ce verdict ce verdict est une honte pour le Sénégal. J'encourage Ousmane Sonko, j'encourage les pastéfiens, j'encourage les patriotes, j'encourage tous les Sénégalais épris de justice, de paix de justice. Mhm. ñu jóg taxaw ñu def nañ xeex xeex boo xam ne ñi fi nañ yore réew xam réew mi moomuñu ko. davantage. j'invite davantage les Sénégalais mmh. à faire des cartons rouges yu ñuy un outil patriotique un outil patriotique boo xam ne fu ñu taxawee nit muy wax ci Macky Sall di ko jàppale ci troisième mandat ñu génne sa carton rouge de manière symbolique et patriotiquement génne ko ne ko carton rouge bii lu ñu dóor Macky Sall parce que waruñu bokk ci élection yi ci Mm-hmm. Euh, si disponibilité bi merci euh, le leader du mouvement Gëm sa bopp président Bougane Gueye Dany moom ngeen doon am sànq et puis mu nekk benn combat bu nga xam ne nii c'est bien mûri wala réfléchi mm-hmm. ndax euh, au mois fo séddale carton rouge ngi war na ne bokk ma ci d'accord ma ci troisième mandat bi. Mhm. troisième candidature bi intéressé wu ma euh, doo verser ci. Euh, la liberté d'expression yi nga xam ne ñenn ñi moom la ñuy constater donc dafay mel ni Sénégal day dox jëm jëm ginnaaw. te loolu également war nañ ko mën a moytu bu fekkente ne da nga am. voilà l'honorable député Mamadou Lamine Diallo. Ah. mi ngi ci député Mamadou Lamine Diallo. waaw président Mamadou Lamine Diallo ñu lay di la di la nuyu di la dalal également ci ci jeetaay bi li Sénégal doon xaar peut-être depuis euh, ñaari at ak lu topp dossier bi nga xam ne moo tey woon réew mi en otage depuis ñaari at euh, ak lu top finalement euh, yegg nañu procès ba am nañu verdict tey verdict bi nan nga ko jàngatee. waaw donc maa leen di wax ne man semaine dernière defoon naa benn tweet. Hmm. bu ma suivre procès bi ci wax ne finalement procureur bi ci boppam bu a ak ay charge am charge de viol menace de mort mhm. yooyu yëpp en réalité soo déggee France mhm. andi nañu nag leen loo xam ne man sax xaw ma ko woon ñu ngi ci code pénal bi de la jeunesse mhm. alors xam nga euh, tout ce qui est vrai et cohérent loolu moom takku na ndax c'est cohérent mënuñu ñoo téye ñun pendant deux ans en otage kenn nooyiwul ci dëkk bi diaspora bi partenaire yi ñëpp waa Benno Bokk Yaakaar tey rajo yi tey journaux yi di wax viol di wax viol dem na sax Sénégal fi ay kàngam ay intellectuel ay borom xam-xam commencé di douter o finish ñu gis ne amul viol juge bi ci boppam. foo dem ci Sénégal àddina senegal dinañ la ne lu fa xew. Mhm. c'est extrêmement grave. yaa ngi may dégg. ñu lay dégg bu baax honorable allo. ñu ngi lay dégg bu baax honorable ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg honorable ñu ngi lay dégg bu baax honorable c'est <laughs> extrêmement grave yëfu tàppale donc dama ne ñoom. wala dañ xam nañ ne lan doon def yëfu tàppale la. ou bien. amoon nañu ay doute jàpp ne peut-être lu xale bi wax mën na ci am dëgg mais loolu suñu demee ba ci biir enquête bi war ñoo xam effectivement ndax loolu am na wala loolu amul donc si après deux ans léegi ñëw du ñu wax ne weel amul donc ma jàpp ne yëpp tàppale et c' est extrêmement grave ñëwuñu fi pour ñu jël suñu instrument de l' administration sénégalaise de la République muy administration muy justice bu mu mënta doon ñu di ko utiliser pour yëfu tàppale donc en réalité c'est un verdict de tappale loolu ba loolu laa loolu la loolu laa bëgg c'est mhm. inacceptable c'est foncièrement injuste mais mais euh, foncièrement injuste parce que lii moom xaw ma naka Ousmane Sonko naka la koy dundee na ko njabootam di ko dundee mbokk mi di ko di ko dundee xaritam yeeg soppe yi ah c'est extrêmement injuste et c'est extrêmement grave parce que waxoon naa leen ko ci njëlbeen affaire u viol bu caaxaan lorsque les femmes ont insisté pour ñu yóbbu ko Assemblée nationale pour la criminalisation du viol j'étais là-bas je l'ai voté mais nee naa leen c'est extrêmement grave et sérieux ko caaxaane mais euh, euh, euh, on ne peut pas accuser facilement quelqu'un pour du viol parce que c'est cinq ans de prison au minimum wala dix ans. dix ans maximum. donc affaire bi yëfu caaxaan la ñoom Macky Sall lu waa Benno Bokk Yaakaar dañuy tàppale wax yàgg naa ko njuuj ñaaj ak tàppale moom nañu yore Sénégal te loolu mënta continuer. mais justement vraiment c'est pas lecture wax naa la. justement justement honorable peut-être Ousmane Sonko. Euh, euh, comment. waaw dama ne peut-être Ousmane Sonko Ousmane Sonko demul procès euh, taxawul ñu àtte ko mais quand même tribunal seetal na ko ci ci ci viol peut-être boobu tamit beneen jàngat la. mais y avait pas le choix ñoom là y avait pas le choix. Hmm. parce que moom moom il les a défiés depuis deux ans demu fa. il n'avait pas le choix amul lu mu waxul justice bi allô mais parce que y c'est pas non ils n'ont pas de preuves. Hmm. la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. tout à fait. il faut que sénégalais yi xam loolu. il faut que ça soit clair c'est vrai. magistrat yi dañ leen di protéger di leen fay di leen former di leen jàngal. c'est pour le peuple sénégalais. waaye bu mu demee ba xool mbir bi la mu jàngal ak la mu xam ak la mu gëm xam na ne amul. Mhm. mais ñoom ci seen bopp c'est ça le fond du problème c'est ça mooy jàngat bi xamoon nañ ko. parce que mhm. topp ñu yéen a jàpp leen. Mhm. xamoon nañ ne